dal leen ak jàmm ñu xëy taaxaan yéene kaay xëyndoo tàmbale ko Walf Quotidien mi dikkaat ci climat des affaires naka ak jafe-jafe yi nga xamante ci na lalu ci mbir moomee ba jafe-jafe bi naka mun fee doon léeboon ak lu peen enquête yéene kaay naka dikkaat ci renégociation des contrats am na si ab xëy ni boo xamante ni moo ngi lalu ci pétrole ak gaz bi ubbil yéene bi nee ñeenti weer gannaaw naka bi nga xamante ni Pastef mu ngi muy compagnie pétrolière ab commission boo xamante ni daanu ko teg ngir xool nees war a def rek ba joyanti rëq-rëq yi nga xamante ni si moo am ci contrat yi ak tamit ñu fexe rek ba càmbaraat ko Ousmane Sonko naka sur les faits établis nee naka dinañu mën a woo benn benn naka ngir ñu xool nees war a def rek ba waxtaanaat ba joyantiwaat li nga xamante ni si convention su ko defee ku nekk mën caa gis sa boppam note du Sénégal révélation yi ni kaay moo ko xëy site internet télé radio rajo yi ñoom ñëpp fintoon ñu ngi si sursi ndax rek ki nga xamante ni moo yor Sénégal di Babacar Diagne bind leen appal leetar nee na naka képp koo xamante ni si bëgg nga di wax di émet mètre ñool nag ñu enregistré su ko defee nag nga mën di def sa liggéey lu ko mooy rek daanu couper sa signal ci nu mu gën a gaawee ci nu mu gën a les échos di ko feelu te naan nag rajo télé web tv nak fi lancé nañ leen ab dernier avertissement de boobee jamono ko patron de presse yi war a jàkkaarloog ni ki ëllëg ak jàmm nag ak taskatu xibaar yi ngir fexe rek ba décliner yeneeni plan d'action xamante ne bëgg nañ koo taxawal ngir jàmmaarloo ak li nga xamante ne si moo di nguur gi boobee jamono nag ñi nga xamante ne si ñoo di waa azirut la ñuy wax ci wàllum accident am ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante si bëgg nañ ko ndax déficit boo xamante ne si ñaar fukki milliards milliards bu feera ay dettes yoo xamante ëpp na ñaar fukki ak juróom-ñeenti milliards yoo xamante si ñu ngi ko war a jox entreprise yi ay plan de passation direct yoo xamante si mu ngi or mu ngi aju ci or plus de trois cent cinquante six milliards yéeni bi ne naka fintooni chauffeur yi ne naka li ñu def laataa ñu koy def ñu defar yoon moo ëpp fu foofu ñu nekk fii dañuy jéem wax leneen ak leneen ndax yoon ni ñu yàqoo métti na su ko defee ñu mën a jublu ci leneen tànnaat yeneen i député Cheikh Tidiane Dièye nag ak Cheikh docteur Cheikh Dieng ñoom ñàkk seen giida ngaas gi daanaka nag fi mu toll nii yeexagul de dossier ca ONAS Cheikh Dieng dans un tunnel nag kaay bi ne rigoureux défenseur de la lutte contre la corruption le ministre de l'assainissement jàkkaaru na ak ay principe am passé ngi xëy di ko tàqani ci xëtam bu njëkk boobee jamono nag l'accident yi kooromaak fay ne fi mu yi nag dañ leen a dàqee fa ñu dëkkoon moo tax ñu ngi si tali di layam-layam yi nag di causer ay accident ak yoo xamante ni si kenn mënoo si ko wax wax waaye nag war nañ cee taxaw indi ci ab saafara def sarax yi nga xamante ni si moo mun a tax rek ba jinne yooyu tàqale ko ñun su ko accident yi doon ak lubeen Basiru Joomaay Fay lamu mu bëgg ca Touba niki démb la fa demoon mooy rek ndoxu Touba goge fintoon yi ñu mën rek ba indi saafara ko fintu ko ne Touba wara am ndox bu neex loolu rek na pastif Pastef ak xemmemteefu président Basiru Joomaay Fay ndax gis na ne si def game tulaay kàttanam bu boobee jafe def fi nag mun koo saafara ñu wax ci leneen yéeni kabilatur bi nag ak ministère du commerce port ak ONAS leneen la dënga prend le dessus du jubanti yéeni kaay bi ne fi wàllum népotisme par parloo nébuleuse malmen ak jubal ak jubanti Serigne Gueye Diop Waly Diouf Bodian Cheikh Tidiane Dieng Cheikh ñoom ñëpp naka fi ñu toll nii ñoo ngi ci ab coow loo xamante ni si diis na gan guerre des versions yéeni kaay bi ne diggante ex DG bu ONAS ak ministère bi yore naka wàllu wi yéeni bi ne fi ñu toll nii kii bu waxee jaar fii kii wax jaar fale loolee tax naka ministre Cheikh Tidiane Dieng niki di si moom la ñu ngàcc si ndoddam doy waar yoo xamante ni si ñoom taximaan yi ñoo ngi koy euh, témoigner ubbil yéenekaay bi benn waay taximaan nee naka benn waay bu la jël boo xamante ni si ab boîte de nuit la jóge woon ci boîte de nuit boobu ba mu fa jógee nag mu koy yóbbu ci taxi am ci yoon bi nag la waa jojee ñàkkee bakkanam si biir taxi am beneen waaye nag ci chauffeur taxi moo di àddu nee nag am na si benn jigéen goo xamante ni si proposé na ko fukki junne ngir rek mu am ak moom ay rapport sexuel maanaam séy moom Sénégal fii la toll mbir maa ñoo ko déggandoo jàngeen jëf